mu nekk cas bu doy daw yaram parce que Baye Fall euh, dafa def déclaration bëti gisatu mu nekk lu daw yaram mu nekk loo xam te métti na trop ba mu waxee ba pare tamit def na ay accusation Sané tamit après génn na tamit tontu xam lool ñu ci mën a wax. dëgg yàlla yàlla mi ci mooy tax mooy tax man wallaahi manuma laa wax. li Baye faal wax manuma la wax li Sanex wax mais damay wax globalement euh, danuy dem ñun doomu aadama ba yaakaar ne ñun ñoo moom suñu bopp euh, di jëfal suñu bopp ndax ma gi dégg une fois bu ma mos a toog ci waxtaan ñu ne ma lan mooy sa projet manaa lii ak lii ak lii mos ko dégg duma ko def danaa ko am nag sama xol di ko jóg di ko defi tey sabablu ci yàlla suñu borom parce que dama xam ne moom ma sama bopp dafa am ku ma bind bi may bind yëguma ma andi ma bi ma andee dafa am yoon wu ma jaaral bis bu koy neex muy roccu gi teg ko fële kon am na lenn lu ma rus toog di ko wax euh, am na ci tamit loo xam ne euh, ah man de xam naa tax tuddiw ñu ma Baay Faal ci télé waaye moom laa doon moom maa ngi koy jàng ak taalibe ngir mat ko ak taalibe nag dañuy xam ne ab nattu mi ngi ci nattu nag danga koy muñ ngir yàlla bu fekkee ne nag mat nattu bu ma dal ma am ku ma tudd damay dem ba ngëm gi day xaw a doy waar te eh, eh, ñun dong ne nenu newuñu fi artiste théâtre yi nga fi artiste musicien yaa ngi fi artiste peintre yaa ngi fi artiste leneen leneen nga mécanicien yaa nga fi tôlier yaa nga fi kenn ku nekk ñu ngi dund ñu ngi am lu ñuy doxal seen àdduna ko dund mais nun buñ ko bëggee toog lanoo daal nu féexal ko ci télé nañu moytu nañu moytu micro ak caméra daf ñuy yóbbu ko nit ñi xeeb nu te ay nit lañu lenn loo xam ne dal na la yaa boo ci yaakaare dara jógal nga toog nga seet nooy doxe waaye du ab wax ko ci télévision wala wax ko ci kanamu kamera mu koy faj nañu moytu xaj na nag ñépp matuñ waaye nag yàlla na nu yàlla dimbali matul nu ba lenn lu nekk nu xam nun nooy kan nun nooy kan mooy nga toog xam ne ne boo gëstoo dootoo gis sa baay ma jox la benn mbir bu doy waar boo xam ne war nañ ci mën a seet rek ci ñun Euh, euh, euh, ca ak taalib gu Baay Faal nag laay wax da ngay jur sa doom ñu ne sa doom ji yàq jur sa jabar ëmb waaye waxtu bi muy ñëw ci àdduna di judd yàlla du lu ko yëgal bu ko andee ba nga ngénteeg def yem nanga lu nekk daal di kontaan yàlla du la wax li mu fiy def ak ab àppam kañ la ba loolu jëwee yàlla mu borom mi xam ne moom moom ay room yàlla du jël lu dul lu dul yëfama ah. moom moom yëfam daf koy jël ay ruum moo ko yor moo ko moom daf fi guñ fi jël ba yëfam la moo ko moom moo ko sàkk moo ko def moo toog ba mu neex mu jël ko sa doom jooju teen bis bi yàlla doon jël ruum du la yëgal koo xam ne bi ñëw yëguloo li mu fi def xamoo booy dem doo ko yëgal lañ si suñu doom bii ngay toog di ko suga te yaay faj ku ko laal nga jóg nangam nangam foofu rek ngay war a xam ne ak mandu lañ ci yàlla keel lenn lu nekk da nga am ak mandu faja ko ca nam fa muy ameeg na muy demee du toog ci télé di ko wax du toog ci ci ci ay micro di ko wax loolu daal laay mettitlu waaye yàlla mi ngi war naa ko ci jëmee Cheikh Mortalla Fall xaw lu lekkee wax xaw lañu tontu lu ma mën a amoon déggoon ko tamit man mi bu ma ko déggoon te war cee mën a am tànk yu ma dox wallahi dinaa jóg di ko dox te kenn du ko yëg ndax euh, ni ñuy li ñuy def mooy naka la ñuy bëgg a jóge ne dañuy yee nit ñi ba nit ñi yeewu ñun ñu tëddaat nelaw am na yoo xam ne ñun war nañ ko rus rus sax wax bu nu daloon tamit war nañ ko war nañ ko war nañ ko dañ ndax ñooy jóg di bëggal nit ñi doxal nit ñi am na yoo xam ne bu ñu jógatee di ko ci nit ñi te nit ñi sax dépassé ñu ci loolu loolu ñuy tegati kon dañu naa kon ñii li ñuy wax du dëgg ci ñoom gëmuñu ko en toute sincérité man daal vraiment man daal ñun daal man personnellement maa ngi nii su ma amul lu may tourné aw ma tukki bu may def on est là nu dund suñu dund yéene ñëpp jàmm di wax ak ñëpp di def ak ñëpp xam nga fii ku fi toog di fi toog nëbbutuwoo nit ñëpp fi jaar nit ñëpp ñooy gis yàlla na nu yàlla dimbali it gàttandoo ñu ci xéewal gi ñu wut bala ñoo gën a sonn loolu rek la ñuy wax mais nag kenn ku nekk ak jaar-jaaram Baay Faal man xam naa ko bu baax xam naa baax wax dëgg yàlla saa neex xam naa ko bu xam naa ko xam naa Aziz d'ailleurs ñu bari sax Cees waa lañ ma teg ndax li ma dëkkoon seen koñ kon am na ci yu bare bare bare bare yoo xam ne man man personnellement euh, euh, euh, doon leen ko ñaan tamit doon leen ko ñaan tollu nañ ci benn jamono boo xam ne ñun dañu waroon toog ndax gis nga benn artiste bu am doom tudde ko artiste ah bu amee dégguma ko de waaw kon ndax suñu ànd bi dëgg la kon nañu seetluwaat sunu bopp bu nu àdduna jay len lu nekk bu waree ñëw ci yow di ñëw ci yow def def ak am am ci yem nañu jiital yàlla sunu borom ba pare nekk ay jëmm yoo xam ne dañoo bëgg def ni te yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp jàmm te mën a toog nag di waat mën a a toog di ko waat parce que boo ko waatee yow ci bopp man si ma toog di wax na mën naa ne billahi wallahi laa ilaha illa huwa waat naa ko jëm Cheikhul Khadim barke maam Cheikh Rafal bis bu ma naree jóg si nit ne maa ngi jóg di defe lu bon yàlla na yàlla yóbbu sama ruu ci daraje maam Cheikh Rafal kon soxlaw ma loolu kon soxlaw ma ko parce que nag laata nuy nekk ay artiste ay nit la ñu doon nit am na lu ci yàlla sàkku lu tax ñu bëgg nekk artiste bu bëgg nekk ay yor ay jikko vraiment méttitu naa ko lool. aussi seen milieu bi tamit xaw na doy wax parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne tey jii yéen a nekkandoo woon ci théâtre ñii feebar nañu ñii manque de moyen moo leen daab jàpp xam bon foofu tamit dinaa fi dellusiwaat kay nit ñi am na yoo xam ne moi d'accord ma ci xalaatu Baye Fall laa ci am ñun ñëpp ñoom mais mécaniciens yi nekk tële mënatuñu dara mécaniciens yi xam ne mënatuñoo soxi am kele newuñu fi. amul ay médecin yoo xam ne ay médecin te ñoom ñëpp ñu ngi të tële ak xëy dee amul ay avocat yu mel noonu avocat yoo xam ne jàng yu am ci kër mën nañoo am sax eh, nu mu tuddati kii bu ñu yore ba dañuy wër seen morom ñu leen di jàppale mais pourquoi ñu féetale ko ñun artistes yi rek c'est pas dit que ne si li ñuy nekk ñëpp ciy jaruñu aar bi ñu nekk ñëpp duñ ci jaruñu il faut ñu am ngëm boobu bu ñu ci jaruñu si dafay am ay ëppalante ah man tey ji man manuma nekk saa neex saa neex du nekk man ci ni ma ko waxee la saa neex am wërsëgëm la moo ko ci fekk yàlla bindal ku ko ah, lu tax ma bëgg na saa neex am na lii rek dama bëgg am lii wala teg ku ku nekk nga toog di ko wax non nañu del su nekk ay doomu aadama bas jaxate bas jaxate lu tudd bu ko yàlla ne eh, eh, benn bang ngay am bang laay am keneen beneen artiste noonu la mel bu ko yàlla ne 4-4 la am 4-4 lay am ala kulli haal yéene ko ko nag te di ko ñaanal mu mucc ci ak jàmm muy gën que ñu toog di waxante bay toog di waxante de des des des animosités ni nii rafetul daal wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla fépp la amul kenn ku ci ci métier ba nga nekk tu vas quarante mille ñoom ñëpp boo ko jariñ ñu am na ci ñoo xam ne tey jii eh, eh, eh, bala ñoo am lu ñu ñaw dem si ay yenn atelier seen morom donc buñ ko jeg ci aar bi ci àdduna yëpp la même ba ci jàngkatu alxuraan sax am na ñuy rawante am na ñoo xam ne am nañu si kër am ñoo xam ne am daara am na ñoo xam amuñ ci dara mais yàlla mooy bind noonu nag séddale yàlla suñu borom la day tibb bu jox kii ngëb jox kii kenn du ko jox dara mais nañu ko nangu ah nañu ko nangu vraiment vraiment foofu moom dëgg dëgg xaw ma lu ñu waxante daal waaye metti na moom xam man ay information ay affaires yi ngay gis nii moi c'est tellement ignorant man euh, pour te dire bu ma la ko waxee doo ko billahi wala xam nga ubbi ordinateur def def ko en marche xaw ma ko mënuma ko rek def ko en marche bouton bi koy taal mu xam wallahi am mënuma ko laa neetal nag yaa ngi théâtre de billahi wallahi la ilaha illa huwa aman ma n'importe quel ordinateur mënuma ko ubbi même moom téléphone bu dul sama doom am naa ci problème gis nga whatsapp day ñëw ubbi na waaye deux cent ay nag perkit pour ma toog ci ni ay whatsapp toog naa ala waaye jamais damay toog benn semaine rek mu ñëw ci kër ma ubbi xol yi may évaluer bu ma gis deux cent kii ma bës kii bi mu jàll ba ma gis bu ma mën a kii ma sayee mais eh, li nag dama ko xam si man ma gëm ko ci man ba ma toog dama ne. Eh euh, feu pourquoi acheter une puce rek nga wax sa tur sa turu ndey sa turu téléphone nga jënd téléphone bi ñëw dugal ko ci biir saa boo xëyee taal sa téléphone fee ñu lay contrôler daal moom ne ah bas jaxate doomu jib bi jaxate de taal na téléphone am lu nu neex ñu wax ci lu neex ñu def ci mais ma bëgg leen laat ci loolu bàyyi parce que tamit boo toppee loolu il t'empêche i réfléchir xoolal suñu gos yëpp léegi ay kankar lañu. ku ci même dans l'école boo yóbbul sa ay whatsapp di tricher gars yi gars yi loo ñëw si whatsapp nga koy nga koy nga koy nga koy fii suñu bàyyi ak suñu ak ñun ñii sax mais bi ñuy jàng on on noo nos têtes dañoo taloon di dem ci ay whatsapp xam nga yan site ak ay nang pour lan mais léegi ñu andi la ko à la merci il t'empêche de réfléchir bu demee looy xam fu mu nekk nii mba fas dal na la tey bu sa téléphone xëyoon réer rek nga dof waaw waaw lu ah waa léegi kon lu tax lu tax man ma bëgg leen topp ci loolu man je